ñuy bàyyi xel réalité yi nga xam moom par exemple wax nañu ne euh, commune euh, Thiès Ouest am na juróom benn junni ak fukk ak juróom ñaari ménage wax ñu ne commune Thiès Nord am na juróomi junni ak ak téeméer ak juróom-ñeent wax ñu ne commune Thiès Est am na ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak juróom juróom benn fukk ak juróom ñaar ñun xam nañu loolu dëppoowul ak leen euh, réunion bi di am nii ci loolu la war a jëm dinañu fexe ba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 nanu yemale demine yi